waxtu jot naa ba toftal fanweeri simili ñu nuyuwaat leen rafetluwaat seen ànd ak seen kóolute ci xibaaru marax yi bokk na ca ponk yi ca gën fës euh, ñi nga xam ne rek ñooy euh, waa Mourabitoun ci wàllum euh, tàggat yaram ñi ngi daal di fas ne dalal waa Sénégal juróom ñeenti fan ci weeru juin bi ñoom nag tey jii daal mbette la ñu am ca Nouakchott ndaxte Soudan moo leen dóor ñaari bal ci dara lool nag daal mu wane rek ne Soudan fi ne nii moo jiitoogum jamono Sénégal ak RD Congo euh, ñi ngi jàkkaarloo ci stade Maître Abdoulaye Wade ndam demul ndam dikkul beneen ponk mbokk yi muy rujëm jëm euh, ci fitna wala boog lu métti lu am ca diwaanu Mbodiène ca euh, Tiwaawan ñu ne daal benn doomu aadama la nu fa faat faat gu métti ba noppi itam taal ab néewam askan wa fëgg seen gémmiñ ne li ñuy dund nga ci ñàkk kaaraange métti na lool jamono ji itam takk der yi ñu ngay wéy di def seen ab enquête takk der yi seen njiit bu bees jëm jébbal nañ ko ay lingeem inspecteur général bu police Mame Seydou Ndour mun nag fas yéene daal jubóole police nationale ak askan wi ba noppi itam wàllum kaaraange ci euh, frontières yi moo xam ci ndox mi euh, wala itam euh, ci suuf si dinañ ko gën a yokk bu baax a baax ñu wax itam ci liggéeyu tasum xibaar ak i jafe-jafe ñu ne dañ caa gis ay lënt-lënt yoo xam ne Reporters sans frontières moo ko xamle ci rapport bi nga xam ne Euh, da ko fësal tey jii la mu ca joxe rek mooy Sénégal dafa deltu gannaaw ci wàllum euh, liberté de la presse ndax mi ngi ci juróom-ñeent fukkeelu place bi ak euh, ñeent ba noppi itam def nañu ay tegtal muy recommandation lim bi topp toll ci fanweer mbokk yi li mooy ponk yi fi gën a fës ngeen taaxir lu ma ñëw léegi ñu faram fàccee xibaar yi dañu koy dooree ak ni ñu ko junjee muy euh, ñi nga xam ne ñooy euh, doomu Mauritanie ci wàllum football ñu ne daal tey ji ci alxames ji mbette la ñu àndal ndax seen nawle yu Soudan moo leen dóor ñaar ci dara ñaar ci dara Euh, ci jongante bi ñu doon euh, amal euh, di fàttali rek nag ne ñoom waa gànnaar fas yéene dalal réewum Sénégal juróom-ñeenti fan ci weeru juin bi ñu nekk loolu nag daal ñu ne Soudan daan gi mu leen daan tax na moo jëlagum place bu njëkk bi ci groupe B bi ak juróom-ñaar ci poñ moom nag mu ngi xaar jongante bi dox diggante Sénégal ak République démocratique bu Congo jamono ji ñuy àddoo ñu ngay jàkkaarloo ca stade président président Abdoulaye bu jam ñaajo tey itam ñi xamal ne dam demul ndam dikkul ñu wax itam ci yeneen résultat ci groupe D bi Libye moom daal euh, Île Maurice la dóor ñaari bal ci benn Euh, ci groupe H bi moom Malawi euh, nag euh, daal dafa door itam Sao Tomé et Principe ñetti bal ci benn groupe A bi moom Guinée Bissau itam daal dafa Éthiopie da koo të ndax ndam demul ndam dikkul xibaar yooyu dinañ ci dellusiwaat ci suñu yeneen jataayu xibaar. ñu wax ci leneen mbokk yi muy la xew ca Mbodiène euh, di aw tiis naqar benn doomu aadama la ñu faat ba noppi itam taal ab néewam askan wa daal di fëgg seen gémmiñ ne euh, li ñuy dund euh, ci ñàkk kaaraange métti na lu ci mën a am police mi ngi wéy di def enquête bi saxanta Anta ak Sey Latiir la ñuy fekk ci diwaanu Mbodiène. Mbodiène ci village rattaché Tivaouane yi la bokk bokk ci commune Tivaouane daanaka boo taxawee di jàkkaarloo Ndiassane fii de lañu faat nit ba pare daal di lakk melokaan bu doy waar kenn xamul góor la wala jigéen la chef de village bi nee na lii de lu doy waar xamuñu ki faatu suñu mbokk la xamuñu góor la xamuñu jigéen la dañuy ñaawlu li xew te du bii njëkkul tey daaw ci fukki fan ak juróom-ñaar ci koor gi amoon na fii benn soxna buñ fa rayan yéen ñëpp dégg ngeen ko mu dëkkoon Fass booy ñu indi ko fee taal ko c'est la même cas am na kii toolu rakam am na benn xale bu jigéen bu jigéen woon Dakar étudiante la moto jël ko yóbbu ko ba foofu tëddee ko fa def na fa 24 heures ñu door a xam mooy kan police ci la joog a ñëwee jàppoor ñëw jël ko yóbbu daaw sama doomu mag toolu jën bi nekk fii une heure heure bii nit jël na ko ni ko yóbbu ma foofu mu dem yóbbu ko foofu ñu dem génneel ko jaasi ak paaka sa ko nangu matoom nangu ay fanam fii si Mbodiène chef de village bi nee na tiit na lool ndaxte jëf yu mel nii de day faral di am fii ci Mbodiène te askan wi woo fii de ñëpp jamono yi ci nen la ñu suuf si ñuy jàpp di ko caxat caxate yàq ko miire ko tëj ko tëj miire àll bi tëj ko ku def ñaaw ñaawte foofu ngay daw dugg te loolu rafetul dañuy inter interpellé nag par le président de la république le premier ministre ministre de l' intérieur monsieur le maire préfet yi sous préfet yi lii nañ ci taxaw wax ñun mënuñoo dëkk Tiwaawan di dëkku religieux dëkku El Hadj Malick Ndiassane nekk fii di ko Baay te saa yu ñaawte fi mel nii amul duñ toog 6 mois yoo xam ne des nii dégguñu ko fi daaw jéeg bu leen fàttalikoo am na fii ci ADK e bi te yooyu yëpp deena la ñuy wax deena. jamono yi nag ci ñu faat na kenn xamul góor la wala jigéen la. procureur bu Tivaouane nag sàkku na ñu def autopsie. ngir ñu mën a indi leeral. ci faatin bu ñaaw bi ñu def. Cheikh Anta ak euh, Sey Latir ñu wax itam ci directeur bu bees bu police nationale bi moom nag jamono ji jébal nañ ko ay lengeem. ngir mu doxal inspecteur général bu police boobu di Mame Seydou Ndour nee na daal fas yéene naa gën a defar diggante euh, way takk der yi ak askan wi ba noppi itam nee na lu jëm ci wàllum euh, luwaa yeeg règlement yi euh, yoon dina def ba ñu daal ñu sàmmonte ak moom ba noppi itam lu jëm ci wàllum kaaraange gi ci frontières yi dina ci gën a góorgóorlu Fatimata Touré Alioune Diagne ci ay leeral di ma ko officiellement ci bopp direction générale bu police nationale moom inspecteur général de police bi di Mame Seydou Ndour daal di wax ay priorité am li mu gën a bëgg mooy réconcilier police nationale ak population bi jaarale ko nag ci lépp loo xam ne dafa mun a ñoŋal offre de service bi compte bokk na ci li ñuy gën a xaar jamono jii nii lu ci njëkk nag moom mooy jubalewaat police nationale ak askan bi loole yëpp nag ñu nar ko jaarale ci li nga xam ne moom la ñu ab climat de confiance boo xamante ne ci ñoom ñaar ñëpp lay jóge naka noonu itam fexe ba askan bi itam di participe ci lépp loo xamante ne dafay jëm ci wàllu kaaraange ci suñu réew mi tamit. beneen mbébét boo xam ni nag nouveau patron police bi am na ko mooy rek daa ci gën a ñoŋal li nga xam ni moo di sécurité bi jëm ci frontières yi moo xam ci suuf si wala ci géej gi. dinañ taxaw bu baax a baax ci li nga xam ne moom la ñu duppee super menaces yi naka noonu itam cybercriminalité ak itam. ñaawteef yi nga xam ne dañ koy nemmeeku ci internet bi dérive yi loolee yëpp nag dinañ ci taxaw ndaxte il faut que mu dakk jëmmal benn unité de patrouille boo xam ne moom mooy nekk ci frontière yooyu képp kuy dugg wala kuy génn dinañu ko saytu naka noonu itam ci wàllu géej gi dinañu def loo xamante ne ni moom mooy gën a taxaw ci li ñu duppee ay infraction ci wàllu maritime bi ba loole yëpp ñu gën koo ñoŋal mieux lutter contre les infractions ministre de l'intérieur nag rafetlu na bu baax liggéey bi nga xam ne moom mi di inspecteur Mame Seydou Ndour amal na ko ci biir police nationale mu ne nag dina ko andil lépp loo xam ne soutien wam la ngir mu réussir li nga xam ni moo di mission bi ñu ko dénk. aussi comme mission. d'offrir un encadrement rapproché. seen mission dina doon kon fexe ba ngeen am nit yu ñu tàggat ci wàll wi. xarañ lool beneen bi itam moo di fexe ba liggéey bi ñu jaarale ko ci yoon respecté li nga xam te ni moo di àq ak yelleefu doomu aadama yi ci liggéey bi ngeen yor. ay réforme bu nag yu yees dinañ ko amal ci bopp police nationale bu ko defee nag ñu mën a rek daal di assuré bu baax lépp loo xam ni mission la ba mën a wattu kaaraange population bi bu baax. Fatimata Touré ñoo lay sant bu baax di la gërëm ñu wax itam ci beneen ponk bu ñu leen junjoon muy reporter sans frontières ak rapport bi mu xaatim dañoo gis deltu gannaaw fii ci Sénégal ci wàllum liberté de presse ba tax na sax nee ñu Sénégal daal ci euh, classement bi mu nga ca juróom-ñeent fukk ak ñeenteelu place joxe nañu ay tegtal waaye itam euh, jàpp nañu ne euh, nguur gi fi nekk dina góor góorlu ci wàllu woowu Abdoulaye Diop ak Jaafara ba ci ay leer lu ëpp juróom benn fukk taskati xibaar jàpp nañ leen wala ñu def leen ay ñaawteef wala sax ñu dóor leen wala ñu tëj leen kaso ci diggante atum 2021 ba 2024 lii nag ñi ko wax mooy waa Reporters sans frontières ci bataaxal bi ñu fësal ci alxamis bi ñoom nee nañ loolu moo waral sax Sénégal jugee ci ñeent fukki place ak juróom-ñeent wàcc ba ci juróom-ñeent fukki place ak ñeent ci classement bi nga xam ni reporter sans frontières moo koy def. bataaxal bi nga xam ni ñu ngi ko tuddee le journalisme à la croisée du chemins di wax ci jafe-jafe yi taskati xibaar yi dund. lu weesu fukk ay atteinte ak violation Euh, ci àq ak yelleefu journaliste yi te juróom-ñaar fukk yooyu gis nañ ci lépp lu mel nii xeetu euh, maanaam fay euh, taskaayu xabaar wala tëj ko suspendre ko lu mel ni Walfadjri lu mel ni Sen TV. Mor Amar mën na ci indi ay CD. ndax am na mu ci fekkee. l'époque <laughs> ab sa ann lañ gënoon a sonal sax quoi parce que effectivement boobu ñu ngi woon euh, place de l'obélisque li ma si gënoon marqué mooy que instant bi ñuy euh, def si ab sa aan euh, violence bi mel noonu si terrain bi amul woon danger. parce que li nga xam ne mooy suñ liggéey ñun taskatu xibaar yi mooy bu ñuy def suñu liggéey bu baax a baax kenn waru waruñoo bunduxatal bala mu ñu xokkata comme Mor Amar. am na lu ëpp fanweeri taskati xibaar yi nga xam ni dund nañ li ñuy wax violence policière am na lu mat fukk ak juróom yi nga xam ni jàpp nañ leen loolu yokk ci internet bi nga xam ni dañ ko coupé woon ci dëkk bi ak réseaux sociaux yi ak këru taskatu xibaar bu mel ni Walf TV am na yeneen journaliste yi nga xam ni sax ñoom dund nañ yeneen xeetu violence lu ci mel ni ay saaga rapport bi tamit ñaawlu na way politique yi nit ñuy duggee ci taskatu xibaar yi ba di fa andi li ñuy wax désinformation xew-xew yi nag amoon ci nguuru Macky Sall léegi nag bi fi président Diomaye Diakhar Faye nekkee liggéeyum taskatu xibaar lan mooy ëllëgëm. jiite euh, waroo gis ne taskatu xibaar say noonu lañu boo ko defee sax da ngay juum parce que daf lay tardel euh, mais itam taskatu xibaar yi xam ne nekkuñu fi. pour maanaam di gasan dëgg sarax ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite réew mi parce que dafa am solo aussi. rapport bi def na ay recommandations yu bëri jébbal ko nguur gi lu ci mel ni ñu mën a saytu kër taskatu xibaar yi xool tamit naka lañ leen di jàppale ba ñu mën a def seen liggéey comme ni mu waree. Abdoulaye Diop ñu jaajëfal wax itam ci association sénégalaise bu trois constitutionnel ñoom nag daal euh, euh, sëgg nañu ci euh, nee si def ba xoolaat mbir mi ñu ne nag daal loolu régime bu bees bi bëgg-bëggam la borom xam-xam yi ne faw itam seen nawle yi nga xam ne ñu ngi daara kay ñoom ñëpp ñu sóobu ci mbir mi ñu ne sax itam mënees naa jóge ci conseil constitutionnel dem ci cour constitutionnel dina tax ba ñu jubbanti lenn loo xam ne daal amoon na ji jixi jaaxa professeur Abdou Khadre Diop la ñuy teewlu kàddu yi Modou Fall la ko dénk. tey ñu amal benn ndaje pour mën a waxtaan ak weccante xalaat ci li nga xam ne jàll na fi muy élection présidentielle du 24 mars 2024 mu nekk élection boo xam ne ci histoire Sénégal am na lu mu tekki am na lu mu indi kon loolu ñu war koo ñu war koo càmbar war war ci waxtaan war ko analyser bu ñu paree ci loolu ñu bëgg tamit fi ñu jëm. ndax ñi ngi jëm suñu xoolee projet bi wax nañ lu bëri ay euh, loo xam ne day jëm ci wàllum réforme constitutionnelle maanaam tëggaat suñu constitution ci fi ñu jëm naka lañ ci war a demee yaakaar naa ne universitaires yi am nañ ci seen baat société civile am na ci baatam tey ñu bëgg waxtaan ci loolu ci lu ñu war a dem ci réforme yi ñu war a def def ci ay proposition yoo xam ni dañ koy jagleel président de la république ngir mu xam ne universitaires yi kat ñi ngi contribuer ci li nga xam ne dëkk bi loolu la bëgg muy dem vers la refondation de notre état te loolu moo waral daje bi te li ñu bëgg mooy tey bu ñu jeexal bis bi ñu mën a génn ak li ñuy wax benn cahier de recommandation te universitaires yi ak société civile waxtaan ci ensemble pour mën a génne cahier de recommandation. yëmbal noor foofe ak njàqare moo am ci euh, yenn ci ay mécaniciens ndax ne ñu daal pàkk boobu ñu nekk di euh, fa liggéey euh, ñenn ci askan wa ca gox ba dañu ne nan fa jógee ndax ñoom dañoo jàpp ne loolu dafa indi ñàkku kaa kaaraange ñoom mécaniciens yi ne daal bëggoon nañ ci kilifa yi ñu utal leen bërëb bu ñu mën a daaneel seen doole Aminata Ba ak Ousmane Balde ci ay leeral. mécanicien yi nekk ci garage Darou Salam bu Yeumbeul Nord nekk nag ci njaaxare yile ouvrier yi nag askan yu dëkk ci bile quartier ñu leen daal di menacé ngir ñu daal di jóge ci bërëb yi. dañoo amoon lu ñu trop. dafa am ay agresseurs fi nekk. ñenn ci waa koñ bi quoi. et fii oto yi dañoo encombré koñ bi nit ñi amuñu fu jaar yooyu. am na plus de huit garages. yoo xam ne garage bu ci nekk ñi cey liggéey dinañ toll ci ay trente quelques personnes dafa am ñu bëgg ñu jóge fi site boobu site bii nii dafa am ñu ci teg seen bët ñu nekk ci koñ bi fii am na ci ñoo xam ne quelques membres yoo xam ne ñoom ñoo bëgg aakimoo site bi chaque jour dañuy bàyyi chaque jour dañuy xëy di menacer nit ñi Abdou beneen mécanicien moom nag muy chef d'atelier boo xamante ni dafa yore ay apprentis yu bëri moom nag muy naxarlu les situations ay kanam adressé fi nekk wala ay kanam toxal yaa nañu bàyyi ñu liggéey daan suñu doole. ñu dàq fi ñi ñu dàq fii amul sens ngir lan interpersonnel. yile ouvrier di woo autorité yi di sàkku itam ci njiito réew mi mu daal leen di jox ab site boo xamante ni dañu fa mën a liggéey ñun ay mécanicien lan dañoo bëgg ku ñu jàppale ci site boo xam ne tey boo ñu ko joxee tey mu leer ñu tey fii bu dee dañ koy fay moratoire sax ñu fay ko moratoire xam nga ñu fay ko moratoire ñu jàppale ñu mais mënuñu chaque jour fii lañ nekk bu nekkee fii bu subaa tey ñu yëkkati ñu yóbbu ñu feneen bu subaa nga nekk feneen bu yàggee fi mu nekk ne xale yi nekk fii bu yàggee danaan mécanique boo ci nekkee doo am dara da ngay obligé dem defi leneen mécanicien yi bëgg itam seen maire di Babacar Ndaw ak autorité administrative yi nekk ci gox bi ñu daal di àddu ci bile coow yi nga xamante ni moo dox seen diggante ak ñenn ñi dëkkee ci daaxu Salaam bu Yeumbeul Nord Aminata Ba ca Kër Massar bu nu fa jógee dañuy dem ca gox bu ñu naan Ngéeñeen foofee service d'hygiène dafa def liggéey bu am solo ndax dañoo dëgg daal nee ñu euh, mala yi nga xam ne dañoo faatu. ci mbedd mi lu ci mel ni xar yeeg yooyu euh, dañuy bañ euh, defkatu ñaawteef fi jël ko euh, defar ko ba noppi itam di ko jaay nit ñu koy ndawalu moo tax daal ñu wàcc ci mbedd mi waxtaan ci ñi nga xam ne ñoom ñooy askan waaye waxtaan nañ itam ak sàmmkat yi ndax xam ngeen ne jamono ji jamonoy wàccu tabaski la ak lu ne mel ñu teewlu capitaine Idrissa Ndiaye ak Ndeye Mati Dieng ak ma Guèye moom capitaine Idrissa Ndiaye moo jiite brigade régionale d'hygiène ba nekk foofee ci diwaanu Thiès Euh, dañ fi ñëw ak ñetti maanaam euh, objectif benn bi ñoom ñu ñu xam lan moo war bu fekkee dafa am mala bi nga xam ni dafay dafay dee parce que ak condition yi ñuy àndee mala yi gis nga ni dafa tàng trop donc di nga mala yoo xam ne dañu leen fi wàcc te dañu fi wàcc ak bakkan mais dafa laaj ñoom ñu toppatoo leen comme ni ko yoon waxee parce que si loolu yoon dafa ne soit dañ leen war a di lakk wala ñu war leen di suul parce que suñ ko defulee rek di nga gis li ñuy wax ay samba boy xam ni lu ñu gisoon sax si benn vidéo boo xam ne dañ ko dugal ci réseaux sociaux yi ñu gis mbedd yooyu di koy di koy fees pour mën a jël ndawal bi yóbbu ko si tànganaay yóbbu ko si gargote yi yóbbu ko si restaurant yi donc boo tax xeetu maanaam mala yi nga xam ne faatu nañu dañu war a fexe ba nga xam ni du ñu andi risque sanitaire pour population ñii di jaay aussi dañ leen wax ni euh, ñu bàyyi xel si wér-gu-yaramu xar bi ba koy xar bi dafa am ay picc am ay góom yooyu yëpp ñu bàyyi si xel ñetteel bi nag moom mooy euh, garab yi nga xam ne dañuy faral di leen koy jox si numu leen neexee parce que problème bi mooy bu fekkee ni départ bi euh, euh, mala bi antibiotique moo ngi si yaram bi maanaam ndawal boobu bés boo ko dencee mun na am ay gàllankoor yu muy andil nit ki donc loolu la contamination initiale boo xam ne mun nañ ko retrouver si ñi nga xam ñooy jëfandikoo ndawal boobu loolu aussi nañ si bàyyi xel beneen fànn bi nga xam ne dañ si bàyyi xel mooy ñi xam ñooy jënd xar yi ñoom dañ leen wax ni bu ñu ko munee rek nañu def lu ñu wax geste barrière parce que gis ngeen ni fii euh, poussière bi da ngay gis dafay jóg donc ñu dellu si ci Ndakaaru waxtaanee euh, ponk boo xam ne dañ ca daan euh, def daal taxaw seetlu muy lu jëm rek ci euh, loolu ñu naan wàllum spiritualité muy nag waxtaan boo xam ne dañu ko tànn ponk bi ci bi ñuy màggal ba ay bés bi ñu jagleel alam gi panel ba nag dañ ca doon waxtaan jaarale ko ci ministre bi ñu dénk wàllu alam gi itam ak ay panélistes yoo xam ne def nañ taxaw seetlu bu am solo Alhassane Ba ak doomu baayam xamatu ñoo fekke woon boobu leen dajee solution by spirituality bëgguta rate benn yoon bëccëg gi ñuy màggal alam gi ci àdduna wërngal këpp wàllum alam gi am place bu am solo ci programme yi ñuy tekk moo tax ñu jël bëccëg woo ay kàngam ñu toog ngir fexe ba xalaat nan la ñuy def ngir fexe ba aar suñu aalam gi donc euh, ñu defoon tey panel bi nga xamante ne nii c'était pour ñu xool parallèlement ak thème bi ñu bi ñu choisir au niveau international SBS choisir thème boo xamante ni c'est sous l'angle spirituel parce que SBS li mu li mu wax mooy lan problème yi ñu mën a jaf jànkoonteel tey yëpp li ko mën a faj mooy ñu dellu ci suñu borom. nañu jël lépp delloowaat ko ci ab ngëm parce que bu ñu delloo ci gëm-gëm rek bu ñu delloo ci jàngale suñu borom ak ay tegtalam guuta gi ñu ne dinañ dem ba génn ci parce que en réalité bu fekkee ne waxante dëgg suñu àdduna bi dafa dugg ci guuta Euh, gis nañu problème yi am ci àdduna bi mi ngi mi ngi am ay inondation ay mbënd fu ne gis nañu mi ngi tàng tàng bu tàngoor bu doy waar ci àdduna bi léegi. suñu dundin ci àdduna bi mu ngi gën di tar ak coppite yi ñuy nemmeeku ba tax na jàpp nañ ne tontu li mu ngi ci wàllum spiritualité. mu mel ni kon ñoom solution by spirituality bu weesoo jàpp gi ñu jàpp ni moom mooy pexe gi gis nañ ne itam moo ñu mën a may ñu dem ci wàllum suxaliku ci fànn yëpp. bu fekkee ni dañoo bëgg a suqaliku bu fekkee dañoo bëgg a ci guuta gi ñu ne bu fekkee dañoo bëgg nekk dëgg-dëgg ay nit bu fekkee àdduna bi fañ ko bëgg a yeggale bëgg nañu mu yegg fa dëgg-dëgg nañu delluwaat ci suñu borom nañu wéetal suñu borom nañu gëm yàlla je crois que loolu am na solo mooy solution par la spiritualité donc jaajëf Cheikh Baba Diallo jaajëf ñi mu àndal te loolu nag du tey parce que man ci sama wàll bopp bokk naa woo nañ ma ci activité boo xam ni am na ci ginnaaw lu weesu fukki at. muñ ci secrétaire général mouvement bi am na solo jamono ji ñu fexe ba yaraat nit ñi ngir ñu xoolaat seen taxawaay ak seen nekkin ci alam gi. ñu yaraat suñu bopp si jikko yi ak lépp gis nañu intervention yi sax ci loolu lañu nekk xool leen ni ngeen dawalee oto yi xool leen ni ngeen utiliser clim yi xool leen xool leen xool donc nga xam ne problème yëpp ci doomu aadama bi la. ñun ñëpp xam nañ ni aujourd'hui suñu nature immédiate mooy environnement bi dañ ko menacé et que nii rek la ñu mën a trouver solution yi maanaam. ñun ñi nga xam ne ñooy nit ñi doomu aadama yi ñu daje waxtaan tënk doxalandoo. bu weesoo ndaje bi solution by spirituality ci bopp li président Cheikh Baba Diallo mi nga xamante ni sax nekkul ci réew mi daañu taxawal ay bëccëg ñu def ay set setal waaye itam jëmbat ay garab fii ci ndakaaru ca maatam waaye itam ca kaw Kaolack. Alxassane Ba ñu jaajëfal ko wax itam euh, daal ci wàllum euh, xeex changement climatique bi ak euh, itam lu jëm ci wàllu mbëkk mi gouvernement bu Sénégal ànd itam ak ay partenaires am daal di taxawal ab projet boo xam ne dañu ko duppee daal jeune entrepreneur vert lañ ca bëgg rek mooy fexe ba gën a jàppale ndaw ñi li ci ëpp nag di ay soxna ñu def ci liggéey bu am solo Ousseynou Diop ak Habib Seck la ñu fekk ci diwaanu Ndar gi projet jeune entrepreneur vert projet la boo xamante ni dafay jàppale ndaw yi nekk ci département bu Podor conseil départemental bi mairie bi ay partenaire am ñoo daal di jug nag taxaw ànd ak waa IPAR ngir ndaw ñi ñu gën leen mën a taggat ay tamit mbay moo xamante ni dina mën a indi ay rendement yoom solo projet euh, li tax mu jóg mooy fexe jàppale ndaw ñi ñu mën a am si lu ñu jàpp ñu bay nag bay boo xamante tam euh, itam li leen gën a mën a jàppale ba suuf si ñu mën ko sam sàmm ko euh, sàmm itam alam bi ndax ñu mën a taxaw ci lii di changement climatique bi climatique. day laal ci agro écologie entreprise boo xam ne du yàq suuf si du yàq agriculture bi donc ñun duñu bëgg ñoo xam ne ay jeunes lañu mais dañuy xalaat ëllëg dañuy xalaat seen suuf ëllëg dañuy xalaat seen doom yi aussi. projet bi nu mel li ko tax a gën a jóg bokk na ci daal di aar suuf si ngir na rendement yi gën a ñoŋ. ñu am aussi euh, dund bu sell mais surtout am ay jumtuwaay yu bees ak xarala yu bees yi nga xamante ne dinañu tax ñun tey ji suñu jaww ji nu mu mel ak changement yi ci am. ñu mën koo saafara. ci kàddu ki fa teew teewloon nguur gi xamle na ni projet bii la dina gën a jàppale ndaw ñi ngir nag lu jëm ci wàllu immigration bi ñu mën koo xeex xale yi bu ñu jàngee ba pare am fu ñu dugg. xale yi dinañ gën a xarañ ba pare ñu dinañ mën a am ay activités yi nga ne dina tax ñoom ñu mën a jëlal seen bopp te yaakaar naa loolu moo nekk mbébét gouvernement bi. projet bi ay ndaw yi nekk ci Podor daan leen di tàggat ñu bëgg nag ñoom seeni bopp ñu gën a nag xam li nga xamante ni mooy njariñ bi am ci suuf si ba ñu mën a toog ci dëkk bi di bay ñu des ba tey ci wàllu woowee euh, alam gi ak xam ngeen ne sànq maa ngi ne leen euh, euh, tey nag mooy bëccëg gi nu jagleel wàllu alam gi démb la woon sax ndax juróomi fan ci weeru juin la foofee nag ca gouvernance ca gouvernance ba pardon Marième Anne Kouyaté mooy adjointe gouverneur bu Kolda moom nag mi ngi sàkkure ci askan wi ñu gën a bàyyi xel sunu alam gi ñu teewlu ko ak Abdoulaye Diallo. dañuy nit ñi ci seen bëgg-bëgg. ci topp seen bakkan seen nafsu dañuy dem ba di yàq alam bi peut-être du loo xam ne dañ koy tey wala lu ñu bëgg mais parce que seen instant de survie mooy posé wu il faut ñu am lu ñu lekk il faut ñu am fu ñu dëkk et cetera moo tax ñuy gën a agressé l'environnement mooy aalam bi euh, tey nag ñu ànd fekk euh, direct mooy division régionale de l'environnement équipe am yépp ànd fekk euh, organisation yi nekk ci wàllu alam bi ñi ciy yëngu di def militantisme et cetera partenaires yi projet programme yi mais surtout élèves yi tey ñu mobiliser leen pour ñu ñëw euh, feetendoo ensemble journée bi euh, ñu commencé ko par randonnée pédestre bu ñu def ce ce matin def ay reboisement jëmbat garab et cetera lépp pour màggal bës bi pour jox ko jay dayoo bi mu bi mu am euh, lépp rek pour wane ne ñun nit am na ñu responsabilité bu am solo bu mag a mag a mag a mag ci wàllu sàmm alam bi parce que alam bi moom lañ fi desee te moom lañ fi war a bàyyil ëllëg askan euh, xale yi di ñëw yu nekk avenir u Sénégal te ñun ñëpp suñu développement su ñoom lañ ko wekk donc baax na ci ñoom aussi mu préparer leen wanele leen lan mooy environnement lan la ñu gën a war a mën a def préserver l'environnement ñu des ba tey ci wàllum aalam gi euh, doxantu ca diwaanu euh, euh, Ziguinchor la ñu gis rek daal mooy lu jëm ci askan woowu nekk ca diwaanu Casamance dañuy jànkonteel ak ay jafe-jafe ci wàllum suuf si naam la bay am na solo waaye itam dañoo gis rek ne daal jafe yi nga xam ne dañ koy am ci suuf seek mbay mi tax na ba yenn ci ay ndaw sax ña ngay màngaan di wutali mbëkk mi ay ONG nag taxaw ngir jàppale. leen daal di amal bëccëg gu ñu eh, jagleel alam gi ngir rekk waxtaan ci eh, mbir moom ak naka lañuy def ba eh, nees lay def ba jooyanti lamin Ba ak Lamine Mandian fekke woon nañu xew-xew bi doon am ci Lille bu ñuy woowee joge askan wa nga xam ne ma nga a xam ne moo di ab mbéy ndaxte suuf si xorom jaaxal na bu baax a baax centre écologique Albert ba tax na jël nañ journée de l'environnement samp fa nga xam ne moo di joogee ngir sensibiliser askan wi ci taxawaay bi nga xam ne war nañ ko am ngir moytandi jafe-jafe xam ne nag mën naa tukkee te suuf si yàqu si waral ko àll bu amul ay garab ndoxu taw bi bu ñëwee da koy lessiver donc sol bi day pauvre te su boobaa nit ñi duñu mën a béy euh, te xam na ñu ni fii béy mooy seen activité économique bi gën a am bi gën a am doole te joolaa bu lekkul ceeb day mel ni lekkul dara donc loolu noonu aussi c'est important moo tax ñun ONG yi ñu ngi siy yëngu bu baax a baax pour xool naka la ñuy restaurer les écosystèmes naka la ñuy restaurer euh, les terres à travers des activités de reboisement mais li ñuy ñaan aussi si activités yi mooy jeunes yi jeunes yi jàpp si bu baax a baax parce que lépp lu ñu nekk di def dans les îles ou sur la terre ferme c'est pour les communautés donc jeunes yi la ñuy ñaan ñu gën a jàpp ci activités yi pour que lépp loo xam ne sumb nañ ko ñu mën ko ñu mën a am les résultat les résultats escomptés. île de Diogé la tànn ngir mu dalal li nga xam nag moo di rencontre de sensibilisation boobee kii nga xam ne moom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu environnement ak établissement classé bu Ziguinchor ne faw ñu jublu ci li nga xam nag moo di agriculture régénérative bu ñu bëggee xeex li ni mel. ñëpp constaté nañu. Euh, suuf si mi ngi yàqu. te ñu ngi abandonné les terres de culture. pour mën a nag xeex loolu lu ñu war a jëkk def mooy. ñu def promotion wu agriculture régénérative mooy agriculture boo xam ne du nga koy def dafay du duñ koy euh, du ñuy def agriculture boo xam ne dafay soxalaat suuf si dana rokk production bi mais en même temps dafay yokk euh, capacité suuf si pour mu gën a produire te loolu aussi day tax euh, day gën a sécuriser nit ñi pour ñu mën a vivre sur terre parce que aussi la protection des terres dafa dépendre suñu dund dafa dépendre si euh, ñu am ay suuf yu baax parce que suñu amoon suuf yu baax duñu mën a bay bay boo xam ni daañu mën a satisfaire les populations. adjoint au sous-préfet bu Kataba 1 di Ibrahima Baba Ndiaye moom moo jiite li nga xam ne que moo di rencontre de sensibilisation boobee moom nag nee na jamono ji faw ñëpp boole seen loxo bu ñu bëggee xeex li suuf si di yàqu bu baax baax li nga xam ne moo di ilier. bi ñu war a am dafa change dafa war a changer. bu fekkee bëgg nañu soppi li am. te jàpp nañ ni nit ñi dañoo war a jàppoo. Euh, liggéey moo xam. état moo xam les collectivités territoriales moo xam les projets et programmes ñu jéem a fexe nan la ñuy protéger suñu environnement parce que seetlu nañ ni léegi euh, dégradation des terres seetlu nañ ni béykat yi seen li ñu doon am dafa wàññeeku seetlu nañ ni émission des gaz à effet de serre dafa jéggi dayoo euh, ràññee nañ également perte de biodiversité. journée mondiale de l'environnement ren nag Ziguinchor bokk na ci li gën a jaaxal ñi nga xam ne ñoo ngi yëngatu ci wàllu environnement mooy jafe-jafe nga xam ne nag ñoo ngi ciy jublu ci île yi. aywa ñu jaajëfal bu baax Lamine Ba ak Lamine Ba Ndiaye jeexalewaat ci qualification coupe du monde euh, deux mille vingt six euh, euh, bu football Sénégal sànq maa ngi leen wax ne dafa doon jàkkaarloo wala ba tey mi ngi ja mi ngi janoo ak RD Congo di xamle rek ne Sénégal dooragum na benn bal ci dara Ismaïla Sarr moo lakk caaxi waa RD Congo ñu yamandi ak yéen fii ci xibaaru marax yi fii ak ay simili yu néew. Sara Cissé dina fi teew dégtal leen xibaar yi ci français ñaa ngeen jëf ci seen cofeel seen safoo ak seen kóolute te seen leen ak sunu ay programme ñu fanaan jàmm